société nationale d'électricité bu Sénégal Sénélec moo leen seen revue de presse tali na jàmm ñoo ànd xëy yër yéen i kaay ñu xëyantoo njaay nee na sàcc yomb na waaye foo ko tëggee moo jafe ñii nga xamante ni dañu leen a jox xari baaraamu tuuma ne dañoo luubal alalu askan mooy xaalis bi nga xam ne moom lañ jagleel coronavirus te rapport des cours des comptes daal di koy wane loolee nag maanaam du yomb journal bi di Sud Quotidien ne maa la ko wax alalu askan wi nga xam ne dañu ko ngar dajo ba nag di sàkku nag yoon daal di def liggéeyam ma ne la askan wu bare bare bari ni ki démb maanaam ñoo génnoon ca place de l'Obélisque ñi nga xam ne ñoo société bi ma ne la réussir nañ seen rassemblement bi yéen a bi nga xam ne moo amoon ni ki la ñu fa doon ñaaru nag mooy njuuj njaaj ak luubal gi nga xam ne njort nañu ne ay ministre ak ay daage dañu koo def ci alalu réew mi maanaam mooy xaalis bi nga xam ne moom Bocco sàcc alalu askan wi daal koy détourné mën a la gis nga dañu laa war a yóbbu fa mbaxana doonee benn nga daal koy goxi yéen kaay gii di wal fa jëree bi ak société civile bi dañoo joxante loxo ni ki démb ngir nag xam ne ñoom lañ joxar baraamu tuuma ne dañoo ngar daajoo ñu daal koy génne yéen kaay gi di enquête nee askanu Sénégal li ñuy sàkku mooy ministre yi nga xam ne tudd nañ leen ci rapport Cour des comptes bi maanaam ñu daal di tekki seen ndombal bërki démb dañu koo toroxal ba mu na tott ci fi nga ne mooy place de l'Obélisque mën na nga ba bu ñëwee dañ ko doon yuuxuloo yéen kaay gii di Vox Populi nee na nag toroxal gu nga xam ne toroxal nañ ko Pape Djibril Fall ni ki démb maanaam tàndaje ma Ousmane Sonko ak Birahim Seck nag ñoom nag ko bu baax a baax yéen kaay gii di Source nee dañu ko mujjee nag daal rawale journal bi waa Grand Place nee na concert de bi tey jii le kanamu haute cour de justice journal bi de la Tribune nee ni ki démb Pape Djibril Fall dañu koy yuuxaloo ba maaradetaali mën a la gis nga mel ni lu koy bëgg a agressé gars yi daal di koy ñu farandooy Ousmane Sonko yi maanaam ñoom ñoo ko doon yuuxaloo doon ko toroxal journal bi nag nee na xam ne ay farandooy Ousmane Sonko lañ ay partisan Sonko ñoom dañoo trompé de combat yéen a kaay gi de moom wax ci mbiri Adji Sarr ak Ousmane Sonko

ñaam mi daal na leer ne bu faatoo kasu bi mara day taali mara day taali bu dee nag dafa faatu kasu bi na Macky ak gouvernement xam na ñooy responsable bi loole nag kàddu Seydi Gassama yéen kaay gi di enquête nee na lu jëm ci wàllum création organisation patronale yi mën na privé bi li nga xamante ne mooy kuréel yi ñu fi taxawal jamono ji bëri na ba mara day taali mbir maa ngi mel ni tuleeg màlle choc des ambitions ko journal bi xëy tuddee yéen kaay gi